ja jëf ja jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bisimila ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës dañ am yéenay forom fàcce ko ak congo amati ca diwaanu Kédougou ci diggante kanjoo jàpp dina ni ay samba boy yu gannaay bu fes dell ñoo fa song ay woto transport yu yeboon ay doomi aadama ba fees dell ay bal fetal la ñu soq ci seen kaw gannaaw beneen arrêté ñu bañ jot nañ cee faat seen soxna su wéyoo ci turu Masuba Samura gaañ ci lu ci tolloog ñetti doomu aadama ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moom moo tukkee ci kii di Soli Brahma Dabo euh, meeting bi waa coalition Benno Bokk Yaakaar woote woon démb ci Louga ci teewaayu euh, Mouhamed Boun Abdallah Dionne ci ay jàppante yu tar la mujjee euh, Forondo Moustapha Diop yi ñoo fa doon laaleeg sa naatango yi ànd ak Mbiri Silla mi président conseil départemental bu Louga Euh, donte la benn bakkarotu ci waaye lim bu takku ci ay militant euh, jot nañ ci jëlee ay gaañu gaañ yu métti ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi euh, ca Touba ñii di jege ñaari Xalifa Sall yi ña nga gàddu seen i yoxo topp ci mbedd mi yuuxu wub sàcce yi xaalis bu takku bi waa coalition benn Bokk Yaakaar di doxantoo ci mbedd mi ngir jëndoo ko askan wi su ko defee ñu mën leen woteel ci bés élection yi moom la ñuy métti lu ci ab nag mu yaatu mu doon amal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 Kolda ci xibaar yi ak cong amati ca diwaanu Kédougou ci diggante Kanjon jàpp janan yi muy ñaari gox yoo xam ne nii ña ngi nekkee fu la ci diwaanu Kédougou ay samba yu gànnaay bu fees dell muur seeni xar kanam ñoo fa song ay wat transport yu bu dajaboon ay doomi aadama ba fees dell ay bale fetal nag la ñu soqe ci seen kaw gannaaw ba ñu lànkee nekkoon du ñu taxaw jot nañ ci far nag seen soxna su wuyoo ci turu Masuba Samra Euh, am na nag boroom kër yàlla mayoon leen lu ci tolloog juróomi bant euh, gaañ ci nag ñette xale yu góor ñoom ñëpp nag jamono ji may àddoo ngeen di teewlu ña nga ñuy rawle l'hôpital lu ni mel nag du buleet ñu koy nemmee ko ci seen diwaan boobee euh, yóbbee askan wi yëkkati seen i kàddu di saako ci kilifa yi ñu dimbali leen ci ab cantonnement militaire du ñàkk kon laata ñoo jeex xibaar yi élément bi dina yegsi su ko defee ñu daal leen koy mën a dégtal Guinée Thiong amati démb fu la ca Mereto di benn gox bu nekkee ay samba booy kon yu gànnaaw yu ba fees dell ñoo fa song benn woto bu yeboon ay doomi aadama ba fees dell kon euh, ñoom ñëpp nag la ñu wàccee oto bi yeew leen ba ñu dëgër daal leen tëral suufa la ñu amee woon ci xaalis amee woon ci koy ci jumtukaay lépp la ñu nangu euh, jëf ju ni mel nag du buleet ñu koy nemmee ko ca foofulee euh, yóbbee askan wi yëkkati seen i kàddu di sàkku ci kilifa yi ñu dimbali leen ci ab brigade gendarmerie dañuy dem ca Tambacounda fekk fa Alassane Diallo. lu jege fukki doomu aadama yu ñu jàpp yeew leen daal di leen tëral ci suuf ak koppar gu war a jege millions yu ñu nangu ci ñoom ak yeneen jumtukaay mu doon ñaawteef yu Samba Boy yi amal ci altine ji fukki waxtoog benn ci yoon bii wutali diwaanu Mereto ci Kumpentum jàpp nungu sin fare ci arrondissement wu Makka Koulibantang département wu Tambacounda juróomi Samba Boy muur seeni i kanam gannaayu ba diis yor seeni i fetal ak ay bant doon koc ñi doon wutali luuma bu Mereto ñu du ko amal altine gu jógee diggante ndungu siin takk gars yi ñu ngi baare bi cinq personnes lañu waaw ñu ngi sole ay masque ñaari ñu ngi yore fetel yu mag ki mu ngi yore pistolet ñeneen ñaari ñu ngi yore bay faal parce que ñu ngi tëral foofu trois éléments takk seen tànk yi loxo yi ñu ngi tëdd man tam ma ñëw ñu ma ma tëdd foofu ñu passé jël lu ñu am ñaari gaatam yu jógee Maka di ñëw lu ma mérato ñu ngi ci benn moto ñu arrêté leen ñoom tamit nangu lu ñu yore kenn ki minutes loolu la ñu yóbbu mais après dafa am benn borom Jakarta bu jógee Maka di ñëw bu mu ñëwee ba tollu virage mu gis action bi mu def demi tour topp ko ñu tiré benn bal euh, moom mu daw mu rëcc bu mu dawee mu rëcc nag booba la gars xam ne fu nekk nii seen deal bi échec na ñuy préparé jël seen bagage ñu fa jotoon ci yëpp ñu départ ñu dem côté côté ndungu siin foofu dugg ci biir àll bi booba ñun lañ jóg ñu tekki li ñu tàkkoon après ñun tamit ñu jóg mu i diwaan ngir mën leen aar dafa xaw a te dafa àlle trop te ñaari luuma yi yëpp am nañ solo bu baax mooy bu makk ak bu meretu leer na la ne nit ñaa fi jaar di fi ànd ak xaalis nañ ñu bàyyi xel Alassane nañ ñu bàyyi xel parce que dara politique rek politique rek Alassane politique dafa war a jeex sécurité bi manqué na vraiment daal man mën nañu jàppale waaye tàkk der yi ci màkk Koulibantang yëg xibaar bi amal constat bi daal di ubbi laaj ci ñu sàmba boo yi jàppoon dolli ci di ñaax waa askan wi ñu lëkkaloo ak waay takk yi ngir liggéey bi yomb Alassane Diallo Émilie Bianquin Tambacounda Walfadjri yi ñàkkum kaaraange nga am fële ci diwaanu Kédougou am ko fële ci diwaanu Tambacounda moom la askan wu dëkkee fële ci diwaanu Pikine di jànkonteel li ko waral nag moo di Samba Boy yaa fa nekk kon di def lu leen neex misaal gi moo di Ibrahima Seck ab chauffeur la ay Samba Boy ñoo ko dogaale dóor ko ba jamono ji ay mbokkam ñu ngi koy toggal xewer mu doon loo xam ne ni ay naatangoom ñu ngi koy mettitlu ñenn si ñoom ñu teewlu leen ci micro Théodore Semedo dóor sama oto saaga ma nday ma wàcc gars di xool nu mu demee ñun saaga ma nday ma ne ko yow kan ngay saaga keneen doxee ma ginnaaw dóor ma jémbe la ñu dóor waa ma daanu bi ma daanoo nag ma téye ci jémbe bi instant boobu nag lu ne def nañu ci lañ ma xaañ ci lañ ma dóor gaañ ma après ci la benn police ñëw gars yi ci léegi laa ko dégg ñu ne bàyyi nañ leen démb ñoom ñëpp amal problème gisoo leen sax waxuñu la dara waxoo leen waxoo ko dara bàyyi leen loolu dafa dafa yomb trop trop. da ngay gis gars yi dañuy sàcc comme que comme que ni sàcc dañ ko def affaire boo xam ne amul benn problème. sàcc taxaw léegi sàcc sa kanam léegi séddoo ko léegi ñun dañuy gis lu ne foofu danger la foofu foofu da ngay taxaw sax di dugg oto xaar kalandoo ñi agressé la. booy yi dañ doon traversé ne muy génn di dem booy yu fëgg faaru oto mu leen bàyyi leen li ngay def booy yi saawa ko ndey mu leen bu leen ma saawa ba wàcc booy yu dóor ko. ba xaañ ko ci bopp diri ko mën na presque ay quinze personnes yooyu diri ko ba fee ci angal bi après policiers yi gaare woon fii ñoo mujj ñëw intervenir jàpp ci ba fekk dañoo siilu woon jàpp ci ñett nit ñi si des daw moom moo jaaxal fi mu toll nii bàyyi kooku ñu leen bàyyi noonu man moo ma xaw a jaaxal ñàkk nañ fi kaara kaaraange lool fii mën na la sàcc yi comme tulleeg màlle ngoon gi sàcc yi bu leen neex la ñuy def dañ lay tafu nga wax sax ñu dóor la are ñu wéy ba tey ci xibaar yi wax ci wàllu politique meeting bu waa coalition Benno Bokk Yaakaar woote woon démb fële ci diwaanu luga ci teewaayu waay Boun Abdallah Dionne mi élimaana jëwriñ ji nekk tête de liste coalition boobee ci ay jàppante yu tar la mujjee forandoo Moustapha Diop yi ñoo fa doon laaleeg seen natango yi ànd ak Mbéri Sylla mi président conseil départemental bu Louga donte le benn bakkan rootu ci waaye lim bu tàkku ci ay militant ah, jot nañ ci jëlee ay gaañu gaañu yu métti ba ñu rawal leen l'hôpital ah, ci jamono joojule waa coalition Manko wu Sénégal ñoom ñi ngay joxeñ ab baaramatuma nguur gi rawatina njiit réew Macky Sall ne dafa jël xaalis bu bare jox ko ay nitam eh, ngir ñu jëndee ko askan wi su ko defee ñu mu leen woteel ah, ci bésu élection yi waaye loolu yi du jàll dañuy dem ci luga fekk fa Omar Kayre xeex bi di wéy ci ñaari tendance yu bokk ci APR bu Louga ay militant wu maire Moustapha Diop nekk ki jiite liste coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci département bi ak ñi fa rek Amadou Mbéri Sylla jiite conseil départemental ñoo doon xeex ci kanamu tête liste nationale bi di Mouhamadou Boun Abdallah Dionne mu mel ni nag déggoo gi doon wax fan yi ci ñoom ñaari tendance yi àggul ci biir xol yi. ma Amadou Mamour Diallo nag moom di woote ab àndandoo te bàyyi li nga xam ne moo di coow li. Manko taxawu Sénégal ñoom ñoo ngay tàmbali di joxañe baaraam yenn jëfin yi nga xam ne dañoo jàpp ne ak jubadi la te ñoom ñu koy jiiñ waa coalition Benno Bokk Yaakaar. comme ni ñu ko gisee toujours ñoom dañuy utiliser euh, bu doon guerre ma ni ay armes non tàmbali na fii ci nga xam ni mooy dëkk bi mooy li nga xam ne xaalis guerre nga xam ne vraiment dañ ko interdit ci lu xaw a mel ni ay élections. li ñuy joxe moomuñu ko suñuy taksak lañuy kii boole. dugal seen poche jëlee ko ci ndeyjoor bi joxe ko ci càmmoñ bi hmm. loolu rek moo fi doon da ngay gis kenn koo xam ni dana xëy lu war a mat trois trois jours chaque jour mu dem suba ba jant soo te kartam du ko gis foofu nga xam ni loolu ñun nañu wax au moins préfet yi ak sous préfet yi nañu wut yeneen i commission mobile yoo xam ni dañuy déplacé wu di dem ci nit ñi di leen jox carte yi sinon suur élection yi dana jot te nit ñi duñu jot carte yi ñun daal ñaaw nañu njort bu baax ni am na leneen lu nu lal loo xam ni waxuñu ko Louga tàmbalee yëngatu nag ci campagne bi ngir dëgmal législative 30 juillet yi fii nag ak ñaar fukki liste ak ñaar am nañu ci département bi ñu mën cee lim waa coalition Benno Bokk Yaakaar coalition gagnante Manko Wattu Sénégal convergence d'initiative pour le Sénégal ak Manko Taxawu Sénégal Oumar Kayre Louga Walfadjri bu ñu jógee ci Louga dañuy dem ba fële ci diwaanu Touba ñiri jegeñaale Xalifa Sall yi ñi nga gàddu seen yoxo topp ci mbedd mi yuuxu wub sàcc yi xaalis bu takku bi waa coalition Benno Bokk Yaakaar yi doxantoo ci mbedd mi ngir jënd ak askan yi ah, su ko defee ñu mën leen a wooteel ci bésu élection yi moom la ñuy méttitlu ci ab ndaje nag mu yaatu mu doon seq démb ak taskatu xibaar yi ah, ñoom ñi nga xam ne ay militant lañu nekkit ay responsable fray ci coalition ma ngi ko taxu Sénégal ñi ngay sàkku ci njiitu réew Macky Sall mu bàyyi seen tête de liste bi mu jàpp tëj ci kaso bi dañuy dem ca Touba Mbacké fekk fu Modou Makhtar Sarr. Macky Sall ak i gaayam ñu ngi wër di séddale ay xaalis di jënd nit ñi te jamono yooyu askan waa ngi dee ci ndóol ñu ci bari bëgg a faju mu tëleen ñenn ñi am jafe-jafe ci courant ndox ak dund gu mucc ayib. du samay kàddu jege ñaale Khalifa Sall yi ñoo ko xamle ci bi ñu amal ndaje ak taskatu xibaar yi ci Touba. tant que président boo xam ne da nga waroon ne dimbali sénégalais yi ñuy lekk di naan yëg seen bopp ci santé defu ko lu dul jël xaalis bi di ko pasar pasaree di ko jaaya doole ci élection législative yi mais sénégalais yi danañ xeex ak moom danañ xeex ak moom xeex bu wér kañ. Euh, aslem 2 amul lamp amul ndox. amul hôpital jigéen ñi danoo sonn amul benn financement kon dañ leen a war a jàppale ci lépp santirul ne réew mi am na ay ministre sentirul ne am na ay député ñun li ñu santir mooy député yi sàll Sall ministre yi Macky Sall ak Mariam Faye Sall ak njabootam mais ñun gisuñu suñu bopp gisuñu formation gisuñu dara du hôpital du courant du dara jigéen ñaa ngi nii ñooy sama témoin ñoom jege ñaale Khalifa Sall yi dolli nañ ci ne dañoo bugg ci nu mu gën a gaawee Macky sàll bàyyi seen njiit lii ndax li ñu koy toppee dara du ci dëgg teg ci it politique dong moo ko lal ndax dañoo mel ni ku ko ragal sax. léegi nag li am mooy koo xam ne da bëgg a bëreeg moom takk tànk ya takk loxo ya takk bëri na ko nañ bëre kooku xam nga ne ñu mu woo ko waaye lépp dë dëggay mujj wax sax dëggay mujj mooy. Khalifa Ababacar Sall ci li ko jàppe mooy du dara du ci dëgg ay tappale ay tappale long la ak ay naafeq waaye benn benn benn benn benn yoon dëgg politique la politique politique rek dafa ñu jàpp dañ ko war a bàyyi parce que yoon dafa maye ñu bàyyi ko mu dem parce que moom moo nekk tête de liste Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm coalition Benno Bokk Yaakaar bu doon ne am midaafoon la bon daañu wax ne ne ma ngay sukuraat foofee ci diwaanu Mbacké ah, gannaaw député Mame Khary Mbacké tey jii suñu mbokki Haalpulaar yi dëkkee ca gox bi di Diegane ñoo ay ci lëf ki mere nañu lool njiitu réew mi Macky Sall miñ ne fayut naar bi xoromam lépp lu mu leen waxoon dina ko def ci seen gox bi daanaka defu si dara la fa nekk ci ay jumtukaay ak us néew njiitu réew ma woon Maître Abdoulaye Wade moo ko fa def sama bopp ma la gënal du bañ naa la te kilo féete ci naaj bi nga war kaa mën a féete ci ker gi gannaaw ba ñu amalee seen ndaje ba noppi Samba Ka ak ñi ñoom jël nañu dogal ni dañuy dumooyu Macky Sall ci yile élection Samba Ka ñu teew lu ko ci micro Moudou Makhtar Sarr. mbetteel lañ ci am. parce di dem di ñu attaqué di di ñu xas di saaga suñu mbokk yi di wax na ñoo ñuy wax foofu tekk wu ñu dara am na candidat bu nekk ci seen liste bi mu ne pël yi nekk ci département Mbacké motuñu sept palaas comme que ñun motuñu sept palaas ñoom ay njaga njaay la ñuy wóot ñu bay leen ak njaga njaay nit ñu bari duñu ndekkuñu Touba dekkuñu Mbacké dañ leen luyee xam ngeen dañ leen luye ay nit ñu ñu lee fu ne ñu indi leen ci ay njaga jaay ñun li ñu soxloon wax ko ne président jafe-jafe bi moo am ci Mbàkke dëkk bii amul lii dëkk bi amul lii dëkk bii amul lii dëkk bii amul lii fi ñu def seen meeting bi ay camion lañu ñu indi ñoo fanaan manque balaa premier ministre yi ñëw problème diigaan na ko xool bu baax bi mu méttee bi muy uut dem na fa ñetti yoon sëriñ bi ñaanal ko boobu bariwul kuy nangu ànd ak moom waaye nag bi mu paasee ba léegi nanguwul teg tànkam foofu ñaari kilomètre ak genn wàllu Ablaye Wade moo fa def ndox moo fa def courant moo fa def rang-rang bi ñaari kilomètre ak genn wàllu mënu leen ko defal tali sax et des pois des mesures bi moom la ñu mënatul ànd mënatuñ ci ànd tey mënatuñ ci ànd ëllëg waaw yow nan lañ lay affecté ci benn département nga nekk hôpital di faj ay nit ñu xëy baxi doomu dëkk bi yàpp waa Mbàkke ak ñàkk respecte jigéen yi nekk Mbàkke weesuwul nga jël ñooñu di leen tabb ami Seck yaaba te li am si département Mbàkke moo ko def ñu génn ko sànni ko fale te ay nit nit ñu nekk biir Touba ñoo ko def ñoo ko def fas yéene wate pour sanctionner leen mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Samba Ka ñu wax ci élection législative yi nga xam la ñuy dëgmal ñu jàpp ko niki fanweeri fan ci weeru suuleet ak campagne bi nga xam ne nii euh, door nañ ko niki dimanche ji waaye nag lu ëpp ci askan ne nañu euh, suivruñ ko ndax nekkul loo xam leen yitteel la ndax député yi dañ leen fal falaat leen waaye dañ gis ne euh, mburu foofu ka farine ko ci fol bu demee ci assemblée nationale daanaka boppam la fay nekkee nekkal Roqay Ndour nag jot na ciy dajekoon lenn ci askan wi ñu tewlu ko ci reportage. fii ci Sénégal nag campagne bi door na niki dimanche bi ñu génn askanu Sénégal nag di ci joxe seen xalaat. ba ñu demee ci HLM Grand fekk nañu fa kenn ci askan wi di wuyoo Mouhamed Ndiaye mu ñuy xamal ni campagne bi soxalu leen lool. situation campagne ñi ma ko gisee mooy que ni euh, temps yi remarqué naa que ni vraiment kii bi c'est agité quoi. vraiment sono yi tout ça man moom personnellement dama dunduma campagne bi parce que la politique moom vraiment c'est pas mon truc franchement mais bon gis naa ni pratiquement il y a cela deux jours xam nga nit ñi ñi ngi ci campagne bi yaa ngi ku si nekk de part et d'autre yaa ngi wut yaa ngi wut sa ay nit xëcc de part et d'autre xam nga pour jéem a compagne comme ni la wax rek bon gars yi dañuy sonal ak ay kii ñuy ñëw ay promesse yu dul jeex xam wax lii wax lii tout juste après campagne bi après bon dootoo leen gisaat donc euh, franchement. jëlaguma sama carte d'identité en fait donc il y a de cela dem naa fa laajte ji mais dañ ma génnagul donc. Euh, ca ga ab chauffeur di wuyoo Saliou Gueye moom it muy lu digaate yi député yi di dig askanu Sénégal te du mujjee fenn. député yi nekk Sénégal ni ma leen gisee moom dañoo gëmut Sénégal ndax genn wàll gépp koo ci koo koo la ci loola ci waay man de wax bu toogee poosam dong lay profitool ba ci Macky Sall mi fi nekk la mu doon wax ak nit ñi defu ci dara la ci deful nit président bu yërëbut aw askanam nag waaw askanam dañoo war a wate sanctionné la nga jógee foofu ci réew ma ñu seeti keneen ndax sonal na nit ñi député yi fii nag moom li ma di wax mooy dañoo gëmul Sénégal kem ku ci ñëw di la campagne te see deen lay jox ak ah, deux mille francs yéen jox jox di la jox maire yeeg ñoom seen ñoo ñëpp kenn ci gëmul Sénégal ku ci nekk fii boo fa nekk sa bopp dong nga fay nekkal man gisuma kenn ku ci kaasal askan wi lenn ah tàngal nit ñi dong la def nit ñi oto yi mu ah, teg misig yi misig yi mënu faa andi nit ñi taxul nit ñi wateel ah, ah, taxul nit ñi wateel leen ci lenn leen la ngay wax programme ba ngay teg ba nit ñi gëm la loola yow yaa koy seetal sa bopp teg beneen programme nga xamante ni bi nga wax nit ñi loo xamante ni bi mën nga leen ko marqué loo xam ne loolu mën naa dugg ci seen bopp yi nii loola moo gën ay programme technique yi wëndeel ci koñ yi taf ay ay nangam nangam dugg fii loolu daanaka sutalul dara nit ñi moom fa ñu nekk ña nga fa. bu ñu sukkandikoo ci taximaan bi di Papis Diédhiou moom it nee na gisul benn changement ci seen ab dundina ci campagne bi ñu nekk. sonal nit ñi rek xatal dëkk bi rek mais ñoom yëpp a yem bu dee wóolu nañ seen bopp moom jaru sax campagne dañu war a jóg bu bës ba ak ñëpp dem woote ku ñu choisir ñu xam yow la. diggee ñu ay fan a ngi nii ba campagne bi dooree ba léegi ñenn ci askanu Sénégal élection yi ngir tabb député yi ca péncum ndaw réew mi soxalu leen loolu te ñu ngi ñuy xamal ni sax nag seen ab wote leeragul loolu ndax jotaguñu ba léegi seeni carte d'identité biométrique. jaajëf soxna Roqaya Ndour ñu wax ci leneen alliance Samba Njikko yi mere nañu lool Ousmane Ndiaye Dago ab artiste peintre la la mu nekkee ca galerie moom lañuy bëgg kon mu dagg. ndax fa lay jàpp ay soxna yoo xam daf leen a fay xaalis euh, futti leen def leen yaram mun leen di leen photo photo yooyu mu koy jël di ko jaay fële ci bitim réew loolu la ñu ne war ma lulul Sénégal ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu jël ci ay matuwaay defuñu ko nag euh, ñoom daañu ci jël ay matukaay euh, Matar Sarr ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo dañoo am lu ñu jaaxal lu ñu tiital loo xam ne jamono yi mi ngi xew fii ci réew mi di xewee fële ca galerie nationale muy jenn waay ju tudd Ousmane Ndiaye Dago day jël jigéen ñi mu gën a tànn nag mooy ñoo xam ne dañoo néew doole jigéen ñu mënul seen bopp période korité wala tabaski nga xam ne am na lu ñu bëgg te mënuñ ko mu jël jigéen ñoo ñu futti leen ba ñu mel ni leen seeni jur juree woon diw leen ban photo leen def leen ci ay photo di leen jaay ci bitim réew ren nag mu ñëw fii Sénégal gouvernement bi abal ko bërëb bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk mu fay amal lu ñaaw loolu noonu li dénoncé mbir mu mel noonu naqarlu ko di wax Ousmane Ndiaye Dago ne ko arrête di wax tamit gouvernement bi nga xam ne moo ko jox galerie national ne tooñ nañu def nañu loo xam ne métti na képp kuy borom pas-pas muy jullit wala sax ku dul jullit lépp loo xam ne laaj nañ ko pour ñu defal ñu ko ci lii mu dëñ defuñ ko beneen yoon lu mu laaj pour ñu dindil ko suñ bopp danañ ko def mais ci kaw jàmm ci kaw dal ñi ngi continuer di wax di waxaat arrête arrête arrête bu mu amati bu mu amati bu mu amati na dakk te ñam gën a gaawee ci jamono joojule mbootaay gi ëmb jigéen yi nga xam ne dëkkee ci dëkk àll yi ñu nga yëkkati seen kàddu di artu ci képp ko xam ni nii yaa ngi yëkkati seen kàddu eh, di dànq di attaqué semence yi maanaam jiw yi nga xam ne ni gouvernement yi eh, daf leen ko séddale ci at mi di wax ne loolu dara amu ci eh, di wax ne baaxut ci ab ndaje nag mu yaatu mu ñu doon amal ñoom jigéen yi ñaawlu nañ nag yéexte gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci suuf Euh, ba ñu euh, ba ñu mën ci jotee su ko defee kon ñu mën a amal seenub liggéey ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon foofee ca diwaanu Kaolack euh, Kaolack la ñuy jëm fekk Falassane Ba. présidente fédération nationale des femmes rurales du Sénégal Ndiouk mbay Songu ak moytuloo ñi nga xamante ni nee na ñi wooyee seen bopp ay béykat te doonuñu ko dara yitalu leen lu dul seen gafaga ak jaxase ñu féete ci àll bi. kon ñi nga xam ne tey dañuy jaay suuf ñi nga xam ne jaxase boo leen jox ñu jaay ko engrais boo leen jox ñu jaay ko mboq ñu jaay ñebbe ñu jaay ñooñu lañ ne nañ arrêté fi nekk dafa jar parce que nag suñu arrêté wul danañu ñu dajeel jigéen ñi ci àll bi parce que nag duñ nangu kenn taxal suuf suñu ne am na mbégte loolu ci jiw yi ñu jot at wi mu ngi wéytuloo ñi nga xamante ni ñoom ñooy wéy di sànni xeer ci politique agricole bu gouvernement bi. parce que sooy seetee bi semence bi ñuy joxe perte la ci gouvernement bi. bénéfice amul ci gouvernement bi bénéfice bi ñun la ñun ñii ñooy ñooy jël euh, gerte gi ñun ñooy jël semence bi ñooy jël engrais bi kon tey bu ñu xas gouvernement. nañ sant gouvernement pour ko alal mu dolli mais koo xees la mu yor doo ca jot te a ci jotu sangaañ la yow bu ñuy wax nañ wax politique mais bu développement ñëwee nawet ñëw ñu toll ci diggante uti semence diggante ji diggante deqi nañ ca dem te bàyyi wax jot ci suuf su baax si ngir bayal seen bopp ñoom jigéen yooyu dëkkee ci kaw gi nekk xeex bi nga xamante ni fédération bi mi ngi koy amal ay at yu bëri te boobu ba léegi amagu ci wiiw doon tamit euh, li jigéenu baykat yooyu di naqarlu. dañ naan luy euh, hectare euh, suuf ñetti junni ba ñeenti junni ren ñu ci fukki junni am na ku ma wax sànq daan ma ndax amagoo tool fukki junni ak ñeent lay luyee tool teguñ ko fenn parce que suuf si kenn moomu ko suuf si kenn moomu ko. bu fekkee ne jigéen ñi dañuy bay te amuñu benn portion de terre bu ñu béyee kooku amatul njëriñ war nañ tey jigéen ñi ku nekk am suuf duñ nga ko luyee yaa koy moom mais ba léegi ñu ngi jànkonteel ak problème mu suuf parce que ñiy jël suuf si di ko jaay ci ñoom la ci paysan féeréer yi lay bokk. ndax boo dëgëree bopp parce que li ñu teg ne pour jigéen amul suuf teguñ ko fenn. Kaolack Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. Actu Région di xibaar yi nga xam moo soxol région yi la tey ji mu ngi yóbbu fële ci diwaanu Kédougou rawatina ci barab yi nga xam ne nii ah, fa la ñuy gasee lii di wurus bi ci maanaam jura yi le ah, dañuy fànn nemee ko nag ak trafic gu doy waar lu jëm nag ci trafic trafic googee lan moo ko wundu ak ñi nga xam ne ñoo ko fay def ah, Souli Burama Dabo amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. xoolee position géographique bu Kédougou région la boo xamante ne daal am na frontière ki te réew Mali ak Guinée Conakry rax si dolli bëri na ay ressources minières ba tax na ñun fépp la ñu jógee dafa jaay seen doole rawat ni nga xamante naal fa sori la ñu jógee gàddu ay xale jigéen ak it xale yu góor di leen defloo naka su dul noonu. le traite des personnes ak trafic nga ne bu nekk lu dëgg la quoi koy gisee dëgg la. parce que ici pour gisee traite de personnes beaucoup de gens surtout man bu ñu waxee traite de personnes rek man Nigérian lay lay xalaat parce que dama gis Nigérian souvent c' est des gens qui quittent le Nigéria via le Bénin le Togo le Mali pour venir au Sénégal au Nigéria am na lu ñuy wax des sergents de culture qui sont là-bas au Kédougou fii am na comité d' accueil te entre les pays traversés aussi il y a ce qu'on appelle des gens qui qui qui s'occupent vraiment de leur passage quoi pour les faciliter le passage donc vraiment dafa nekk loo xam ne te Kédougou particulièrement mooy or bi. ñi fi ñëw yëpp bu gën a ma li ma gën a jaxal tous les gens victimes de traite mooy nigérien bu ñu eggee dañuy jaay seen bopp rek mais nag ñuy jaay seen bopp nekkul nigérien kese de. bon maltraitance yëf yu doy waar la ndax euh, bu fekkente ne da nga jël nit ki waxuloo ko dëgg ba ngeen egg si foo xamante ne soree na ak fi mu dëkk nga ne ko lii laa lay imposer loolu lu doy waar la d'abord te loolu loi Sénégal daf ko tere te kuñ ci jàpp. dinañ mun nañ la tëj juróomi at ba fukki at loolu lu doy waar la donc loolu ñu ngi koy nekk di def ñun en tout cas ñu ngi ñaawlu euh, traite bi nga xamante ne moom la ñuy def nit euh, nigériens yi moom la ñuy def burkinabé yi parce que léegi beneen phénomène dafa am ay xale yu góor burkinabé moins de quinze ans ñoom la ñuy indi ci juraa yi ñuy liggéey ci li ñuy wax karakara yi ci li jot nag ñi di burkinabé yi ak ci nigériens ñoo ñoo yëm si yooyu activité ba tax na dëkk mu mel ni askan fa yeewoon nag nelatuñu ba yandoor ndax am na ay doom réew mi ñuy bokk ci mbir ci wàllu njàng mooy abandon xale yëpp bàyyi nañ école yi boo seetee collège Xosanto c'est dafa vidéo lu ko tax parce que jura am na fa prostitution clandestine dafa bëri sax moo ci ëpp moo ci ëpp parce que suñu sœurs yi sénégalais xam nga am na ñu bëri ñoo xamante ne rus nañu dem wut kayit pour jaay seen bopp kii di Mamadou Aliou Diallo mais di président bu tribunal des instances bu Kédougou di xam ne nag c' pas parce que dañu bokk ci espace CEDEAO ñu nar a gàllankoor réew mi kon toll nañu foo xamante ne daal foofu ñi nga xamante daal ñooy yor kaaraange réew mi lëkkaloo ngir lii la traite ak i traite de migrants mën a fa jógee ba faw gis sa doom yore Jakarta. mënoo si wax dara nga gis sa doom mu yore ay portable cent mille francs yow xam nga ni dépense pour nga am ko jafe-jafe la si yow léegi fi mu nekk nii di gis ñeneen di ko yor xamuñu ko nu ñu ko jëfandi yow sa doom daal di am ay xaritoo yooyu xale yu góor yi nga xam ne matuñu sax ay fukki at ak juróom di leen liggéey loolu nga xam ne suuf mabbu leen loolu tamit lu lu lu jéggi dayoo la. dana xam na jafe-jafe yu a jur ëllëg ci biir Mamadou Dramé président fédération régionale des orpailleurs nee na daal am na ay doomu réew mi ñu liggéey ak Burkina bi ngir seen intérêt. Bon, tu dis que ceux qui sont pas bons, et toi, c'est toi qui les héberges. Tu ne dis pas la vérité. Qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il ne pas faire. bu nekk fay tey tey boo si dëkk bi Niger ñu nekk foofu ak Ghana ak euh, euh, euh, Burkina. waaw mais rek la leen mais comme am na ñeneen ñi Niger nekk en tout cas naan ñoom vraiment dañu am seen carnet. si dëkk yu mel ni Tenkoto bi ëpp na fukki nationalité ak juróom ñu fa fekk baax Kédougou Soli Brahma Dabo la Chimère Fall pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Soli Brahma Dabo ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofule ci la ñuy tàbbiseeg yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Xadi Sila lañ ci àndal. fële ca Burundi juróomi doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci benn baar bi nga xamante ne ay nit ñoo fa nekkoon te benn autorité bu mag ci réew mi daal di leen fa invité ci la ay terroriste daal di profité sànni fa ab ndell ñu bari ci nit ñi fa nekkoon tamit am fa ay gaañu gaañu juróom ci ñoom ñàkk seen bakkan porte parole police bi mi ngi xamal suñuy naataango yi nekk BBC ni dafa mel ni autorité boobu ci boppam la ñu visé woon ci attentat bi loolu daal di nekk ab tiitaange ci population di fàttali ni Burundi rek dëkk bi li nga xamante ne depuis yëngu-yëngu yi nga fa nemmeeku woon ci troisième mandat Pierre Nkurunziza te mu def forcing depuis boobu ba léegi jàmm dafa xaw a dafa xaw a tagatembe sécurité bi ba léegi ñoŋaluñ ko bu baax a baax looloo tax bis bu nekk wala semaine bu nekk ñu daal di fa nemmeeku ay attentat ñett ndaw ñu njott ni ñoom ñoo def ñaawteef bii sax teg nañ leen loxo police daal di ibbi enquête. Rwanda ak France seen diggante yàgg naa ñagas ba ñu indiwaat ci ab jàmm jàmm jooju sax dafa mel ni jamono ji dafa xaw a daal di ñagas ndaxte délégation française ba fa waroon teew dañu leen bañal visa autorité rwandaise yi nee nañu ba ñu doon déposé seen document ngeen ñu may leen visa dañoo nemmeeku ni drapeau ba fu njëkk ba nekkoon ci réew mi ci jamono jeunesse rwandaise moom lañu daal fësal ci seen i document loolu daal di métti bu baax baax autorité rwandaise yi looloo tax ñu daal di bañal visa délégation française bi fàttali sax le 9 ak le 10 la délégation officielle française bi waroon ñëw fële ca Rwanda ngir daal di waxtaan bu fa jugeewoo daal di dem Cameroun ki nga xam ni moom moo nekk ca bopp délégation bi di Rémi Maréchaux nekk directeur Afrique ak euh, Océan Indien ca ministère des affaires étrangères da nga xam ne mooy responsable Afrique ci mbirum développement ak mbirum koom-koom ñoom xamuñu jamono ji ba xam seen ndaje bu ñu waroon am ak euh, ministre des affaires étrangères rwandaise bi dina mën a wëyandi ndaxte problème diplomatique diggante France ne mu daal di am ay yëngu-yëngu yu bees fële ca ministère des armées gis nañ ni dañoo wàññi bu baax a baax lii di budget euh, Florence Parly déplacement bu mu naroon def ci benn base aérienne da ko reporté ngir daal di wax ak euh, député yi ngir ñu daal di yokk budget ministère am naam Emmanuel Macron dafa diggee woon ci campagne am bis bu nekk ci bopp réew mi lii di budget militaire yi da koy daal di ful bu baax a baax waaye gis nañ ni pour mu daal di respecter promesse boobu dina metti bu baax ndaxte gafa ga réew mi dafa xaw a tagatémbe 40 milliards moom la ñu daal di jël def ko ci mbirum défense waaye gis nañ ni il faut ñu daal di ko wàññi ndaxte lépp nañu lu toll ci 2,7 milliards te nga xam ne ba léegi France fayegu ko wàññi boobu bañ ko xaymaa ci koppar gis nañ ni dina dem ba ci 850 millions d'euros te parlement bi voté na ko ba pare loolu daal di nekk bunt bi nga xamante ne adversaire u Emmanuel Macron yi mun nañ ko exploiter ngir daal di gën a wax ni président wu mu bees réewum France boobu fulaalul benn yoon li nga xamante ne mooy mbirum défense bàkk bi jib na xibaar tàggat yaram yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum asalaam Seydina Omar. football coupe du Sénégal. coupe du Sénégal démb ci euh, ngoon ci stade euh, Demba Diop lañ doon amal quart de finale bu mujj bi résultat baa ngi nii port autonome de Dakar moo mujjee daan US Rail benn bal ci dara mu qualifié demi-finale qualifié demi-finale. tey jii ci suba la ñu amaloon tirage yu demi-finale yooyu le lii la joxe comme résultat kon nag jogante yaa ngi nii ci demi-finale Coupe du Sénégal édition 2017 Mbour Petite Côte mooy daje ak Tëngéej football club àllarba dix euh, maanaam 19 euh, juillet ñoom ñaa ñooy daje fële ci stade Caroline fay beneen demi-finale bi mu ngay am itam stade Caroline Faye waaye le 22 juillet lay doon stade de mooy dalal port autonome de Dakar kon nag gis nga jogante yaa ngi nii. Euh, Mbour Petite Côte Teungueth football club ak Stade de Mbour con contre ki nga xam ne mooy Port Autonome de Dakar. Euh, natation Seydina Omar euh, Ba fédération bi dafa doon maanaam amal li nga xam ne mooy journée internationale bu. fey nekk loo xam ne lu am solo la ñoom nag liñ ci doon wut moom mooy jéem a ñëpp Euh, xam lan mooy fee euh, discipline boobu xamal ko ñëpp ci loolu la ñu nekkoon ba tax na ñu am ay sites yu bare di ay bépp xeetu euh, maanaam fee ci wàllu tàggat yaram ñoom ñu koy wane di koy fësal ñu déglu ki nga xam ne moo nekk ci bopp fédération bi di Mohamed Diop. tey moo doon njëriñu bés bi parce que bés bi mooy première journée internationale. xam ni moo ne na dëkk yëpp lëkkaloo pour mën a euh, euh, euh, féete ni ñu mënee wax féey mais duñ ko féetee ci rek ay compétition comme ni ko nit ñi tàmm xam mooy Dakar Gorée wala rawante féey yi ci piscine yi mais nañu fexe ba wane ni féey yemul foofu féey mu ngi ci ñi ñi nekk ci géej yi di jàng féey mu ngi nekk ci ñiy def aquagym mu ngi nekk aussi ci ñiy def water polo gis ngeen ko mooy sport bi nga xam ni handball ci ndox mu ngi nekk ci plongeon mu ngi nekk ci discipline yooyu yëpp fii tamit njëriñ bi mooy ñi nga xam ni dañu am ay feebar wala ñu bañ a bëgg a am feebar yi nga xam ni moom mooy rey nit ñi actuellement muy euh, diabète obésité yooyu yëpp fee bi baax na ci parce que nit dina mën a bañ a mën a dox waaye dina mën a fey te loolu am na njëriñ euh, liñ ci mën a wax aussi mooy que jàng fee dafa di loo xam ni nécessité la parce que ci boo jàngee fee ci ngay aar nit ñi ci ñu bañ a lab parce que fléau la tey jilee minute bu ne ñeenti nit dinañ dee ci àdduna ci lab donc foog ñu xam ni te suñu dëkk yi nga xam ni pays sous-développé yi fa la dee yi gën a bare donc fléau mondial boobu mais li ko mën a aar rek mooy ñu jàngale fee que autorités yi xam ni natation dañ ko war a def ci école jàngee ko ni ngay jàngee saut en hauteur ni ngay jàngee basket gymnastique noonu nga waree am droit jàng fay waaw kooku moo doon euh, Mouhamed Diop nekk ci bopp fédération sénégalaise bu natation ci bës yooyu lee sax am na ci loo xam ne moom la euh, moo jaaxal euh, ñu bare ñi fekke woon ci bës bi mooy benn ndaw benn jigéen bu am ñaar juróom-ñaar fukki at juróom-ñeent moom nag bokkoon na ci fee bi dañuy def rekk déglu ko lan moo ko indi ci mu ñëw di fay ñu déglu ko. Thank you. Sénégal ma ñibbisee Sénégal sama doom bu jigéen ak sama borom kër ñoom ñoom encouragé pour ma daal di def natation ndaam sax euh, commencement bi dama bañoon ndaxte musuma def euh, mbirum fii ci sama na te tamit dama ragaloon bu baax lii di ndox waaye jamono ji gis naa ni ay ngëneel rek laa ci am di woo sama yeneen morom euh, jigéen ñi nga xamante ne dañoo ragal di fii ni ko ñëw soobu def ko ndaxte lu am njëriñ la te lu gën a mën a ca kanam suñu wérgu yaram la fay daal lépp luy ragal wala ragal ndox bu ma amoon ca jamono ci yëpp deñ na nga ne rek laa gis ci natation bi may def. Euh, la natation c'est formidable. kooku euh, ndaw si euh, moom nag la mu ngi tudd Rosalie Kwe Goua am gars yi moom nañ ko waaye ab sénégalaise moom. du ñu koy ñu koy def. waaw suñu mag yi moom. waaw. tal nañu leen tal nañu leneen. jaajëf jaajëf Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi lay sant di gërëm mbokk yi kon ci foofu lee ci la ñuy tàbbisee yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm lii di coalition yi bari nañu liste yi bari nañu waaye yéen kaay yëpp a xëyandoo tey xëy fësal Abdoulaye Wade njiitu réew ba woon njiital PDS njiital coalition Wattu Sénégal fa Quotidien ne doon ko fës lool démb gannaaw ñibseem ci Ndakaaru mbooloo mu takku ñoo ko gàttandu teertu gu rëy la Abdoulaye Wade am démb yéen kaay bi ne foo natt mbooloo ma weesu na ko dar ko di ko bàkk ne góor gi moo bari doole yéen kaay bi ne bu doonoon mobilisation maanaam mbooloo mu takku rek mooy tax nga gagné assemblée nationale kon Abdoulaye Wade mooy ati moo assemblée nationale moom njiital coalition gagnante Wattu Sénégal ñam ca fegool xam le ne góor gi doyalu ñu dolli ñu ay kaddoom ci biir yéenekaay bi Abdoulaye Wade daal di dànkaafu artu njiitu réew mi Macky Sall ne bu mu xalaat benn yoon dàqa élection législative yi jeexal na ci réew mi na waaj ak njabootam moom Macky Sall bu amul avion ba ko yóbbu Abdoulaye Wade ne mun na ko jox jet privé ba ko indi Abdoulaye Wade ne li xew ci réew mi mosta am ne fi mu bàyyi woon réew mi ak fu mu teer si wute na lool Abdoulaye Wade gis ne bu weesoo pont de l'émergence bi lee dara la fi njiitu réew mi Macky deful yéenekaay bi di Le Quotidien felu ko ne lu defu waxu Wade ñibbisi na ak mbooloo ma dar ak marche bu la gamu amal moom Abdoulaye Wade xamle ne njiitu réew mi Macky Sall ñàkk na wote yi ba noppi bu yaboo mu waajal ngir génn réew mi bu jaree sax mu al ko avion Abdoulaye Wade ay wax leneen la mu jot leeral ci biir yéenekaay bi ne bëggatul dégg ku koy naan demal noppaliku ji ndax magal na Abdoulaye Wade ne ña koy wax ñëpp ñoo am jafe ne dara jotu ko ne xel xalaatul mu ba politique ñu dem ci yenn yéenekaay bi di Vox Populi mi ñu xibaar ne Abdoulaye Wade def na show am démb waaye xamle na ne ëllëg njiitu mi Macky Sall créé yi lay teeri ji leneen la mu leeralal njiitu réew mi moo dina ñàkk na élection législative yi lée bu yeboo mu fagaru Abdoulaye am lu ko metti lool ca ña koy naan ña ba politique ne magal na Abdoulaye ne xel xalaatul mu ba politique fekk suñu borom mu ngi koy may doole fekk mu ngi ànd ak xelam yéena kaabi di l'observateur ne ku doon laaj ci faali ngoog Abdoulaye Wade na démb ci Ndakaaru waaye ak mbooloo mu takku ko teeru yéena kaabi ne woto ga mu dugoon moom Abdoulaye Wade pan la def ba ba ko ñaareel estrade ba PDS na ci benn pàcc gu mujjee màbb ba am ñu ca jëlee Senghor Sadio Diouf ak kii di Xali Gabon yéen a cabinet Abdoulaye ca la yëkkatee kàddu xamle ne Macky Sall daal ay xowam foor nañu leneen la mu xamle ci biir yéen bi moom Abdoulaye Wade ne réew mi amul lenn lu fi njiitu réew mi Macky Sall soppi bu yeesoo pont Sénégal 92 ba mu duppee pont de l'émergence loolu kott la fi njiitu mi Macky tabax ba tey Abdoulaye Wade ay wax yéen di enquête ne mangoog bi mooy sànni tàccoom élection yi lée Abdoulaye waaram ci géew politique bi ne liggéey donga ko war yéene kaa bi di enquête gis ne Abdoulaye Wade mile yëkkati na loxoom ne wiiw ne gañe na élection na yile wote tànneefu député yi yéene kaa bi di la témoin seede ne mu takkoo takku kenn xamul tolluwaay ga teertu gu mag a mag la ñu teeru Abdoulaye Wade démb yéene kaa bi ne gannaaw ñaari at yu mu tegul tànkam ci ndakaaru ay farandoom ne Abdoulaye Wade yëgsi na ci waxtoom rawatina ci élection législative yi njiital PDS njiital Manko Wattu Sénégal ay kàddoom ci biir yéene kaa bi xam xamal njiitu réew mi Macky ne waaj jot na bu yabo mu fagaru waajal boppam waajal njabootam te xam ne yile wote tànneefu député yi ñàkk na ko ba noppi te bu laajee Macky Sall ma al ko avion gi ma indi mu yóbbu kook njabootam leneen la mu jot a dànkaafu njiitu réew mi Macky Sall ne lu wér te wër mooy ëllëg kere yi ngay mujjee yéene kabidi la te mooy gis ne teertu gi ni mel jëm ci Abdoulaye Wade ci Ndakaaru waaye bu ñu deful ndànk Touba mooy rawati ña ko fa nar a teeru ña ko fay xaar mbooloo ma takku na direct info ne ca Versailles gamu ne woon fala bawoo ne direct yegsi ci Ndakaaru Wade toll ci juróom-ñeent fukki at ak benn yéenekaay bi gis ne Abdoulaye Wade foo ko natt weesu na ko bu mu taxawalee partem ci atum 1974 ba tey ma ngay buuxante ci géew politique bi jot naa buuxanteeg Léopold Sédar Senghor Abdoulaye Wade buuxanteeg Abdou Diouf tey jile mu ngi buuxanteeg njiitu réew mi Macky Sall gis ne góor gi ma ngeek moom ba tey xadar gaag pas-pas ba ci géew politique bi yéenekaay bi di la Tribune gis ne mbaboor maanaam mbooloo mu takku ñoo dara Abdoulaye Wade démb am lu ko metti lool moom na moom Abdoulaye Wade nabba politique baat googule neexul benn yoon Abdoulaye Wade ne ñoom ñoo am jafe-jafe réew mi quotidien ne njiitu réew ba woon Abdoulaye Wade ndax dina mun a matal waaram ci bile campagne ndax dina ko mun a yëgaleem déet 24 ne Abdoulaye Wade mi yegsi démb waaye Cour pénale nañoo dal xaat Abdoulaye Wade mel ni xeme njiitu mi Macky ngir ñu amal élection yu jaar yoon élection yu leer leneen la mu jotal leeralal askan wi te leeral ko Macky na jël njab njabootam te waaj xam ne ñàkk na réew mi doole ga mu amoon amatu ko moom Macky Sall Abdoulaye Waday wax leneen la mu wax ci 24 heures moom Abdoulaye Wade ne am na jaaxle lool jommi la def ci réew mu Sénégal ak tolluwaay gi ne fa mu bawoon réew mi ak fu mu ko fekk tey ne dafa ruslu Abdoulaye ne Sénégal yeewul li ne bu weesoo pont de l'émergence amul lenn lu fi njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram tabax yéen a bi di ñu xamal ne Abdoulaye Wade ak gàngooram Abdoulaye Wade ak yegsi ci réew mi ngir jàppale Sénégal jàppale askan wi maanaam mun fee jëlee nguurug Macky Sall njiital soppi ne amul lenn lu fi soppeeku ci réew mi yéen cabinet tey ji la fas yéene feggoog waa coalition wattu Sénégal bu fa jógee fas yéene wutali Tiwaawoon jàpp Touba l'évidence ne ci tertu Abdoulaye Wade démb yaram daw na yax des am na ñu fa newoon seen rongoñ lal na suuf ndax mbooloo ga ñu gis ñu riir wutali Abdoulaye Wade dollu soke pale ba wooteeb ndajeb daardaar maanaam réunion de crise a xam ban tànk la ñuy taxawee ak ban tànk Wade feggoog coalition Benno Bokk Yaakaar Le Soleil ne googule coalition Benno njiit di Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi yëkkati ay kaddu dalal xelu Sénégal xam ne ne lu jëm ci gaz beeg pétrole gi nguur gi dina ko saytu ci anam yu mucc ayib ci anam yu leer ci anam yu jaar yoon bu dee Moustapha Niass ma jaar ca Nioro jot na fa rafetlu liggéeyu njiitu réew mi Macky Sall yéena kaabi di l'Observateur xëy di ñu dégtal ay kaddu Mouhamed Boun Abdallah Dionne mi yekk lu mel ni bi ne waxaleen fu ñu teg seen tànk amul lu ñu mën a def ba gàkkal li fi njiitu lu aju ci fiit gi amoon ci bac bi yéen a bi di la témoin xëy di ñu ko dégtal di ñu xamal ne enquête gañ ca def tax nañu teg loxo lu tollook fukki élève ak juróom-ñeent ak ay étudiant yéen a di enquête ne police yemu ca jot naa teg loxo proviseur bu lycée bu kawoon teg loxo ñaari liggéeykatu office di bac ña nga ca digg enquête ne ñoom ñi ñoom la ñu njortu ne ñoo taq ripp ci fuite gi amoon ci bag bi